ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat tv ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey nag dañuy wax ci patrimoine yi nga xam ni ñoom lañu dénk réew mi parce que ci bési ñu weesu Macky Sall dafa sàkku ci ay ministre am déclaré li nga xamante ni am nañ ko ci wàllum xaalis pour que ëllëg ñu mën a xam ndax diggante bi jot nañ fee luubal xaalis wala déet wala ndax jot nañ fee am lu ëpp li ñu déclaré woon bi ñu leen di fal mais déclaration boobu noonu nga xam ni Macky Sall wax na ko ñun jàpp nañ ni farce la lu tax ñu ne farce la mooy suñu yoon dafa ni ñi fi yor ndombal tànk yu am solo tàmbalee ko ci président ay ministre am ba ci président assemblée nationale kuñ ci fal wala ñu nommé la am nga ñetti weer pour déclarer OFNAC li nga am ci alal lu mu toll. léegi imagine leen depuis ba Macky Sall amee deuxième mandat ba ni muy formé gouvernement en avril 2019 maanaam lu ëpp at kenn ci ñoom demul def déclaration de patrimoine maanaam dañoo bañ Macky Sall déclaré woon na ko en moo tax sax tey ñu intéressé wu d'abord ci kaaw moom Macky Sall mi nga xam ne la ñu dénk réew mi maanaam est-ce que alalam méngoo nag li mu jot a am ci xaalis depuis ba mu tàmbalee liggéey ndax fi mu toll nii bu ñu évaluer patrimoine u Macky Sall maanaam li mu déclaré woon en 2012 waxuñu 2012 jàpp 2019 mais 2012 bi muy déclaré patrimoine am moo xam ay kër ay terrain ak ay oto boo ko évaluer loolee lépp ay milliards la dañ ci ñëw benn par benn mais laata loolu dañuy àndandoo également xool Macky Sall depuis ba mu tàmbalee liggéey ci bànqaas goo xamante ni ci nguur la bokk en 1998 jàpp 2008 diggante boobu noonu salaire yi mu jot am lépp bu ñu ko boolee est-ce que méngoo naag li mu déclaré ne am na ko ci alal en 2012 loolu lañ fas yéene leeral tey. mais balaa ñuy ñëw ci calcul yi dañuy leeral d'abord benn njuumte bu ñu defoon ci vidéo bi ñu jagleeloon gazelle oryx yi nga xam ni ministre bii di Abdou Karim Sall sàccoon na ko ci parc bu Ferlo gannaaw vidéo boobu noonu dañu jot message waaye itam ci commentaire yi que gazelle oryx ñu ngi koy woowee ci wolof kooba wute naag kéwal ndax kéwal moo gën a ndaw kooba kooba mun na peser lu ëpp 100 kilos am na sax ñu ñu wax ni mën na jar lu tollu ci 350 millions ndax bu weesoo ndawal gi nga xamante ni doomi aadama mën na ko xewloo béjjën ak der bi am na ñu ko jëfandikoo ci wàllum jabar maanaam wàllum fétiche donc après vidéo bi ñu ci defoon dañ ci xamaat yeneen mbir yoo xamante nii abordé wuñ ko woon parce que por parfois nga def vidéo yem ci benn mbir nit envoyé le message après xamal la ci loo xamante ni yow sax say gëstu mayu la ko woon te loolu yaakaar naa ni bokk na ci li gën a am solo ci vidéo yi nga xam ne ñu koy def ndax gaa dina am ñenn ñu ci jëriñu waaye itam di nga def vidéo ba pare nit commentaire wala envoyé message dolli la ay mbir yoo xamante nii xamoo ko woon ndekete li tax ay ministre du rek Abdou Karim Sall parce qu'il paraît que Aly Ngouille ak Mansour Faye jot nañ seen wàll jox nañ leen ci kooba yi ngir ñu yar li tax ñuy xëccoo mala yooyu noonu newul rek ci wàllum décoration mais kooba yi dañu am valeur boo xamante nii amaana daañ ci dellusiwaat jëmi jamono ngir yeneen leeral yu gën am solo bari na lu làkku ci ginnaaw gazelle oryx yi nga xam ni ñu ngi koy woowee ci wolof kooba. ñu ñëw ci sujet bi maanaam patrimoine bi ma Macky Sall ne am na ko ci lu matul fukki ak juróom balaa ñu ñëw ci patrimoine boobu noonu maanaam kër yeeg oto yeeg terrain yi nga xamante ni am na ko entre 2000 jàpp 2008 dañuy évaluer d'abord maanaam natt xool ba xam salaire am diggante boobu noonu may na ko patrimoine boobu noonu. pour tàmbali dañuy ñëw d'abord ci premier salaire u Macky Sall en tant qu'ingénieur, Bir Petrosen parce que Macky Sall liggéey bir Petrosen entre 1998 et l'an 2000 ci ñaari at yoy mu fa chaque mois lu ci 650 000 francs CFA bu ñu multiplier 650 000 yooyu par 24 mois yi nga xamni def n'ako fa day toll ci 15 millions 600 000. jàpp leen bu baax chiffre bobu parce que mo ñuy permettre ñu mëna def calcul yi après. Abdoulaye Wade follow en 2000 def ko moom Macky Sall directeur général Petrosen bi nga xamni simple ingénieur la fa won. gannaaw ba ko defé directeur général Macky Sall do fa fayé ko lu tollu ci un million cinq cent par mois mais Macky Sall 7 mois la fa def ci boppu Petrosen ci juroom ñaari weer yoy noonu Macky Sall jot na fa am lu tollu ci dix millions cinq cent mille ba tey chiffre boobu noonu. ba Macky Sall jugee ci boobu Petrosen beneen ndombol tànk bu am solo bu mu amaat ci nguur Abdoulaye Wade mooy nekk ministre des mines ak wàllum énergie ak lépp lu jëm ci hydraulique ci diggante 2001 jàpp 2003 avant muy nekk ministre de l'intérieur et des collectivités locales entre 2003 et 2004 diggante boobu noonu maanaam diggante 2001 ak 2004 ci jur ñetti at mu amoon salaire bu toll ci 2 millions 500 mille weer bu yàlla sàkk boo ko calculer day nekk 90 millions de francs CFA ba tey jàpp leen chiffre boobu noonu. Macky Sall jóge fa Abdoulaye Wade def ko premier ministre en avril 2004 fa la nekk ba 2007 maanaam ñetti at mu doon jëwriñ gu njëkk ci nguuru Wade doon fayee ko chaque weer 3 millions 500 mille loolu boo ko calculé ci diiru ñetti at maanaam 36 mois day nekk 126 millions de francs CFA jàppaat leen chiffre bii. En juin 2007, Macky Sall président de l'Assemblée nationale, Bataille Tungour Abdoulaye Wad, Moudefa, 1 à 4 mois. Qui 16 mois, il y a eu chaque 4 millions. Si défait calcul, il y a 64 millions de francs CFA. Les bonnes total, manam depuis que Macky Sall, Ligue et Tungour, la Côte d'Alé, qui est ingénieur Biri Petrosen, salaire est 15 millions 600 000 mu jóge fa directeur général salaire 7 mois yi fa def ci 10 500 000. mu daldi di itam wat fofu nek gi ñu ministère de l'intérieur salaire am ci ñaari ministère yoy nga xamni jaar na fa mi ngi ci 90 millions ñun nommé ko premier ministre dir ba mu fa def mu fa 126 millions de francs CFA pare nek président assemblée nationale gagné fa lu ci 64 millions dir ba fa nek légui boo calculer lolé lépp maanaam diir bi Macky Sall occupé ay ndombal tànk ci nguur lay Wade ak ñaari at yi ko précédé maanaam bi muy nekk ingénieur biir Petrosen loolu lépp boo ko boolee mi ngi toll ci 306 millions yu tegal 100 000 francs CFA maanaam ñetti téeméer ak juróom benn million yu tegal ñaar fukki junni boolewuñ ci taxes yi boolewuñ ci frais yi ci doon def parce que ku wax salaire du loo xam ni da nga koy jot yóbbu ko ci banque di nga dundal say njaboot di nga dimbali ay nit di nga am itam yeneen charge manam buñ ci dindi won lolé lépp li Macky Sall gagné épargné du mat sax 200 millions donté do na may ay avantage mais lolé lépp mënu ko won may 500 millions yo xamante da fay dajaloo mais liñ ci mëna japp moy Macky Sall diggante 1998 bi mu tambalé liggéey biir Petrosen ba 2008 bi muy quitté PDS salaire yépp mi ngi ci 300 millions manam ñetti téeméeri millions ak lu teg mais nañu xol bi muy faloo en 2012 alalam ci ñaatalu tollu bi Macky Sall faloo en 2012 def li nga xam moy déclaration de patrimoine am fichier bi disponible dans ci journal officiel d'ailleurs document bi def nañ lien bi ci description vidéo bi pour ñi ko soxla après bu ñu jëlé li mu amoon moom Macky Sall ci walum kër li la ci déclaration Macky Sall mu ne amna benn kër titre foncier fi nga xam moy mooy Patte d'Oie 205 mètres carrés nee na mi ko am en 2001 ci lu toll ci 12 millions te ci 12 millions yooyu noonu nee 8 millions yi da banque de l'habitat du Sénégal ci benn prêt boo xamante ni waroon a durer fukki at ak juróom. kër googu noonu jamono en 2012 valeur am mi ngi tolloon ci 250 millions. Macky Sall nee na itam am benn villa fi nga xam ne mooy ñàgg 200 mètres carrés boo xam ni nee ko ci lu ci 12 millions en décembre 2004. Macky Sall ba tey am na itam beneen villa R plus bu 2000 mètres carrés fi nga xam ne mooy Saly Portudal kër googu noonu valeur am ñu ngi ko estimé woon jamono jooju 250 millions de francs CFA. ba tey biir Saly génn guñ fa Macky Sall nee na abaat na fa itam beneen kër boo xam ni mi ngi ko jëndee 35 millions en 2002 villa boobu noonu jamono jooju valeur am tolloon na ci 50 millions. bu ñu jëlee këram gi nga xam ne nag moo nekk Mermoz di ab titre foncier toll ci 699 mètres nee na mi ngi ko jënd en octobre 2006 ci lu toll ci 130 millions bitim réew aussi Macky Sall am na fa dëkkuwaay parce que boo demee États-Unis précisément fi nga xam ni mooy Houston am na fi benn appartement wu 300 mètres carrés nee na mi ngi ko amee ci benn prêt bancaire bu waroon jeex en 2017 appartement bi jamono jooju valeur am ñu ngi ko estimé ci lu toll ci 109 millions de francs CFA. ba tey ci déclaration wu ci sàll am na yeneen kër yoo xamante ni ci turu Marème Faye Sall nekk mais sénégalais yi tamit dofuñ ñëpp xam nañ ni Marème fay sàll liggéeyu fi lu ko may ay kër. léegi ci kër yooyu noonu benn bi mu ngi nekk Sacré-Cœur 3 R plus 1 la jamono jooju moo nekkoon siège yu APR kër googu noonu valeur am ñi ngi ko estimé ci lu toll ci 80 millions de francs CFA. beneen villa bi nekk ci turu Marème Faye sàll mi ngi nekk Comico 3 valeur am ñi ngi ko estimé ci lu toll ci 90 millions. mais Macky Sall yamu ci ci keur yooyu mais amno aussi ay terrain benn bi mi ngi almari Almadi di titre foncier wu 2069 mètres carrés valeur jamono joju mi ngi ci 200 millions manam en 2012. Macky Sall am aussi benn terrain wu 9 hectares c'est bàyyi la boo xamante ni mi ko pour newone da fay bay bo demee Fatick aussi amna fa terrain wu 1200 mètres carrés. bu ñu jugee ci terrain yi ñëw ci oto yi maanaam parc automobile bi maanaam li ma Macky Sall déclaré woon ni am na ko en 2012 ci ay oto mi ngi toll ci 35 véhicules maanaam fanweeri oto ak juróom yoo xam ni nee na la ko taxul jóg mooy ay activité politique am lii ñu leen limal lii yëpp nag déclaration bu Macky Sall def la en 2012 maanaam bañ koy soog fal ci bopp réew mi bokkul ak li mu jot amaat diggante 2012 jàpp 2020 loolu xam naa buñ ko xamee ñun ñëpp dinañ gën a jommi ci réew mi déclaration bii nii yàgg na boobu Macky Sall mi ngi soog a falu mi ngi soog a jot ci boppi réew mi te li ñu mën a jàpp ci lii lépp mooy naka la koo xamante ni diggante ba mu tàmbalee liggéey biir Petrosen en tant que ingénieur en 1998 amoon salaire u 650 000 diggante boobu ba ni muy nekkee président assemblée nationale entre 2007 et 2008 maanaam ci diiru fukki at salaire yëpp boo ko boolee mi ngi toll ci 300 millions. kooku noonu naka la mënee am ay kër yoo xamante nii benn boo ci jël jamono ji en 2020 valeur am dépassé na 300 millions am lu ëpp 30 oto boolewuñ ci terrain yi nga xamante nii am na ko fu ne xaalis boobu yëpp nag li wér te wóor mooy Macky Sall liggéeyu ko loolu moom lu wér la fan la ko jëlee yaakaar naa ni ku xool doxalinu tey ay ministre am ay directeurs généraux yi nga xamante ni moom moo leen nommé ku xool seeni i doxalin ak moom Macky Sall ni mu leen di protéger maanaam ñuy def lu leen neex te dara du leen ci fekk di nga xam ni loolee alalu sàcc la Macky Sall yorul entreprise buy liggéey ay de millions par at donnuwul xaalis boo xamante ni ci ay wajuram la deful benn activité bu ko mën a may lii lépp te nee naa li ñu leen limal lii yëpp mooy li Macky Sall am ci nguuru Abdoulaye Wade maanaam bi mu nekkulee président léegi bi mu nekkee président ak léegi ñaata la war am ci patrimoine loolu mooy vraie question boo xamante nii mérité na ay investigation mérité na bés bu jógee ci bopp réew mi ak ñi ko wër ñu yóbbu leen kër yi ñu leeral dërëm bu ci nekk comme ñu ko defee woon ak Karim Wade yaakaar naa ni fan ni yëpp dégg ngeen tàmbalee nañ jaay appartement Eden Rock yi nga xam ni Karim Wade ak Djibo Bourgi ñoo ko moom mais na leen leer ni nguuru Macky sàll bés bi ñu fa jugee xamuñu kan la yàlla di teg ci bopp réew mi mais daañu sàkku itam ñu topp leen ñu fay suñu alal gi nga xamante ni sàcc nañ ko ndax leer nañu ni liggéeyuñ fi lu leen may alal ju tol noonu bu ngeen gisee ministre mi ku ci nekk lànk ne doo def sa déclaration de patrimoine bañ ni doo dem OFNAC wax li nga am ci alal ñi ngi xalaat ëllëg bu ñu fiy jógee bu ñu évaluer lañ fi jot a sàcc loolu moo tax tey ku ci ne ci ñoom bañ ni doo déclarer li nga am ci xaalis parce que ñi ngi sóoraale ëllëg mais lenn lu ci nekk rek daañ ko topp ndax mënuñ di jàpp sàcc yu ndaw yi bàyyi sàcckatu milliards yi nga xamante ni ñoom amuñu yërmande ci askan wi la ñu waroon delloo ci population bi tabaxal leen koy hôpitaux tabaxal leen koy école dimbalee ko jeunes yi nga xamante ni amuñu liggéey xaalis boobu la ñu jël di ko sàcc di ko investir ci ay kër di wut ay prête di ci def seen turu jabar di ci def seen i turu doom pour lépp bañ a feeñ mais suñu borom tànk mi ngi ñuy may talak fekkee ak fañ ko waxee daañu ko jéebaane ba képp ku sàcc alalu Sénégal nga leeral ko indi ci ay firnde waaye itam ñu teg lay daan yu métti vidéo tay bi nak dañ koy jéxalé comme niñu amé habitude diko défé souvent ci promouvoir ay jeunes sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi bay seen war ci seen domaine mais bi yoon benn chaîne YouTube la bu ñuy woyé Boy Galsen. yo J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Alassane. Je suis étudiant en France depuis 5 ans. Euh, j'ai décidé de créer une petite chaîne YouTube sur laquelle j'explique pour les étudiants qui souhaitent continuer leurs études en France, les étudiants, les étudiantes et toute personne qui souhaite continuer ses études en France. J'essaie d'expliquer les démarches, euh, comment ça se passe, Campus France, comment ça fonctionne. Une chaîne YouTube intéressante pour parce que si nous sommes en train de faire des choses, donc ci yoon woowu nonu le ben jeune étudiant sénégalais bi nga xam mi ngi France di wuyoo ci turu Alassane Ba créé ben chaîne YouTube tudé ko Boy Galsen ngir accompagner jeunes sénégalais yi nga xamante xamuñu naka lañuy def pour am préinscription ngir jànge ji bitim réew wala buñu accepter sen préinscription yan étape la war suivre mo xam demande de visa wala naka ngay amé hébergement wala ci benen wet noy def ba adapté wu ci dëkk bi nga xamante fa nga wara a sa njàng chaque semaine Mom Alassane Ba chaîne YouTube am di Boy Galsen day def ay vidéo pour jox ay conseils étudiants sénégalais wala bachelier bu bëgg a wéyal njàngam bitim réew lien chaîne YouTube bi def nañ ko ci description vidéo bi Boy Galsen la amana mën na leen jariñ wala jariñ ku leen jege te bëgg accompagnement ci fànn woowu noonu donc jàngat bi tay lolo won ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci benn jàngat jaa ngeen jëf.